soudeur métallique yi coono bu dul jeex lañuy dundu ci période koor gi mu nekk li nga xamante ni lu am ay njeexital yu bari seen i liggéey. waaw euh, métti na trop nag ci koor gi parce que imaginaire nga liggéey ci safara tamit xam nga ak bruit bi te lekkoo naanoo poussière bi yëpp. mais sant yàlla daal parce que tamit wérum koor bi moom wérum xewal la waaw. Pape Ndiaye moom gis na ni rek koorub ren bi moo tane suñ ko comparé bien sûr ak bu daaw bi. c'est ren moom bon mu tane na quoi ndax euh, ren ak climat bi bon c'est c'est bokk na itamit ci coono yi ñuy dund di njëgu facture bi. waaw courant bi moom seer na parce que imaginer ay machine kese ngay utiliser moo courant bi moom xaw na métti quoi ci loolu ñu ngi yaakaar ni rek nguur gu bees bi dina leen ci jàppale bu baax. waaw c'est que léegi c'est que lépp a cher léegi lépp cher li nga xaar que à ce que à ce que donc nos nouveaux gouvernants là ñu ñëw vraiment ñu jàppale ñu daal ñu wàññi yenn yi daal yu si bëri. di ñaan itamit mu nekk ay mesures yu gaaw ndaxte fi mu nee nii lépp a cher.